leur domaine Tay nak dañuy ñëw ci ciapandawga ga nee naa leen am na ñoo ci liggéey kenn du leen woné kenn du leen dékk micro tànk egguñu ci ciapandawga ginnaw ginnaaw bi ñu partagé villa bi fukki fan ñuy gëstu di liggéey liggéey lu am solo lo xamanteni ni Sénégalais yëpp dinañ ci tek seen bët dafa am ko xamanteni dañ ko fi fekk muy ndaanaan kenn du ko présenter Sénégal il a fait ses preuves à travers le PBS il a fait ses preuves à travers la culture urbaine il a fait ses preuves à travers la musique sénégalaise du kenn ku dul Baye soulay Baye soulay nuy na la salaamaaleykum maa ngi lay nuyu Tange di nuyu média bi ñëpp ñuy seetaan képp ku nekk foo nekk ñëw naa jox la loxo ne salaam. kon ci salam bobu lañ koy dalalé ak jàmm ndaxte fu amul salam dara xaju fa Baye soulay tay ñu gis leen ngeen initier ben projet bo xamanteni mëna né pour la première fois dans l'histoire de la culture sénégalaise ñu gis dix jeunes filles ñu bokk génération ku ci nekk di yëngutu ci sa wàll ñu war leen bolé pour ñu liggéey ben album dix titres tay mëna nañu xam lan moy particularité Baye soulay ci projet boobu. waaw c'est un plaisir hein, toujours de bokk ci genre projet yi parce que man je suis un homme de l'ombre quoi depuis plusieurs années.

ba ci ni nga koy partagé ba ci emballage partage bi daal man sama pàcc la maintenant dans le projet j'étais un, un j'essaie de créer un pont entre ce que veut la production mooy ñi sas ñi sanc affaire bi muy Moustapha euh, ñeneen ñi ci woo que ça soit euh, IS 814 que ça soit Nathan Joe et Will John qui sont là pour la musique entre ñoom entre aussi avec euh, crew Manjumori bu pour bind avec euh, les artistes Je vais créer pont entre Moustapha ak ñooñu créer pont entre ñooñu di la musique de top line yi ak artistes yi ba créer un pont entre artistes et le public pour au final connecter. nekk am li nga te pour loolu nekk pour ku nekk am li nga bëgg il faut que ay pont am kii xam kii lan la bëgg kii xam kii lan la mën ci lan lay xaar ba buñ koy jox public bi mu mën a neex tamit public bi donc dafa laaj benn ay ay ay ay xorom yooyu dolli ay dosage ndox dosage sóor nooy sóoree nooy baaralee euh, togg bi daal noo koy defee ba élément yépp ba boo koy yekkee jox ko nit mu neex kon yaakaar naa ni géeg ngeen lu mu wax neena mom pont la ben relais pour que nit ku nek lu mu soxla mën ko am te xam nañu pont mom day facilité pour nit mën a bay soulay Souley ñu gis ci diiru fukki fan ngeen liggéey ci albumu 10 titres ginnaaw biñ ko wara a Paris masteriser ko yomboon na wala yombul ci diiru fukki fan ngeen jëleel fukki xalé yu jigen waxuma sax ay goor mais ay jigen seen dund nu mu metté comment ça a été le travail. excellent des fois j'avais man bon fa laa doon taxawee parce que il faut que il fallait de la psychologie créative euh, ngay xool ku nekk fan la nekk ak di ko expliquer sax moom boppam parce que yenn saa mën nga jóg benn son ñu ne ok son bi couleur bi lii la soxla nañ ci kii kii kii. Euh, il fallait par exemple man ma am les mots pour expliquer leen lu tax kii leen jël ak kii ak kii comprends nga. Euh, affaire bi du question mën way mën am son texture la texture voix comme par exemple koo ne dafa am voix ne voix wu yaay la une ko muy way ci ci ne la ak par exemple

yenn saa ñun duñ leen woo ci yenn saa ñoom ñooy jël seen initiative créer seen bopp propre réunion entre ñoom toog waxtaan waxtaan lan moo kii lan moo kii lan la ñu war a bàyyi sas seen bopp balaa sax ñun ñu ñu leen di ñaax ci yenn yi quoi. du coup ça bien passé quoi te j'espère que ñoom jàng nañ ci lu bëri à travers ce projet fort que ku nekk bu demee ci carrière am bu war a dugalaat wala bu waree créer son yim fi doon teg yëpp j'espère que dinañ leen jëriñ ñoom ci seen propre carrière ci ku nekk. kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo mbooloo mooy doole waaye daf ci yokk benn moo booloo ba pare déggoo te gis ne booloo am na fi déggoo am na fi tey bay soulay projet bi ginnaaw bi nga ci participer dund ko fekkee ko lan la mën indi de plus ci musique sénégalaise parce que pour la première fois ñu gis projet bi. Euh, day indi lu bëri déjà dina jox leçon ñeneen. Euh, je parle même plus de la première génération Sen Maki ou le Sen Yaayi. Euh, mais c'est un truc concret xam nga euh, fii d'habitude toujours da ngay dégg waa gars yi dañu war a mbooloo ci lépp ah ci lépp way dañu war a mbooloo quoi ci na am sar mais ça c'est une preuve matérielle c'est du concret ça a été fait nit yi gis ko te dou projet bo xam ne sax dañuy tok di daje studio dañu dëkkandoo di nelawandoo di yeewandoo te dëkk moom dafa moo gën a xat dëkk moo xat te nit balaa ngay xam ji comme ngeen dëkk waaw mën ngeen di gisee ni koo xam ne waaye mën nañ leen boole deux jours rek ngeen reyante waaw mais ci euh, à travers ce projet c'est en fait dafa war a nekk benn benn mode d'emploi mode d'emploi wu mbooloo dans la culture nga xam ne nit dina toog jàng ne ah ñii de bi ñuy doon mbooloo nii la ñu defoon def leen lii def leen lii def leen lii def leen lii c'est un cas d'école quoi et nekk na loo xam mën nañ ko yóbbu fu ne ci biir région yi ku nekk ci région yenn artiste région yi mën nañ dajaloo def li ñi nekk ci rab bi ak li ñuy dëgër dëgër bopp mën nañ di dajaloo di def yi xam nga euh, ñoom seen génération seen rakk yi parce que ñoom dañuy am ay rakk am nañ ay rakk yoo xam ne lii c'est un legs boo xam ne bàyyi nañ ko fi lu dëgg loo xam ne weddi gis bokk ci quoi du ay wax nii rek yuy naa waaw nañu mbooloo parce que mbooloo bi mooy tax ñu avancer ça c'est du concret quoi

àndandoo liggéeyandoo parce que ba paré deugou moy doon deug en tout cas ñi ngi lay remercier bu baax Baye Souley ci initiative bi ci projet bi comme nous l'avons dit Effort est un nouveau projet mais qui a sa continuité dans le futur merci Baye Souley merci Tange et merci à toute la population sénégalaise gis nañ gars yi euh, attrait bi ñu am ci projet bi les likes les commentaires et tout euh, toujours, tu as, il y a plus de, de, de, de messages euh, euh, positifs. Là, loolu la soxla quoi gars yi bu un genre affaire yi manie. nii leen la soxla pour population bi comprendre leen ba pare pousse leen quoi et merci encore à toi pour ta ta présence toujours dans la dans la villa.